li xew ñëpp xam nañ ko événement yi bi ci génnee dafa am suñu mbokki patriote ñu jàpp te lii ci état bëgg xam nañ ko mooy dañoo bëgg prox ndollu pour discuter le parti Pastef réewu mag Sall mooy tas Pastef. ASID TV la chaîne des patriotes. fi ma bëgg waxtaan ak yow nag euh, beneen actualité bi muy force occulte. Hmm. nemmeeku nañ la si nga am benn si taxawaay. Mm-hmm. mooy xale yi nga xam ne jot nañ leen teg loxo. Mm-hmm. ba mu si mujj am ku si mujj ñàkk bakkanam muy mm-hmm. François Manka bu ñu fas yéene ko jent euh, bon force oculi lañ bëggoon nga indi ci ay leeral lan mooy problème bi. parce que yow gis naa ne yaa ngi si dox social di dimbali gars yi ni ñu téye sax di leen yóbbul ñuy lekk ak ay yooyu. bon loolu dañ ciy sant yàlla rek parce que bu dama wax ne Ousmane Sonko projet bii mu woote ku ci ñëw rek bu ko bu ko namoo. kuñ dimbali la dañoo dimbali la dañoo bokk ci ñu dimbale ñu bokk moom lii te aw wëy wu rafet danañ ko ci am allah parce que euh, man mënu leen wooyee force force occulte force spéciale ay Black Panther man farce spéciale la ko jàppe farce la lii farce la du leen ay caaxaan la rek gis nga état bi ñor dañuy font dañuy caaxaan loolu képp laa gis te lépp xam nga lan moo ko war a tiit ragal ki ñu jàkkaaroon c'est-à-dire ki ñu dañoo ñoom dañoo umpane lii mbir yàlla la de plus en plus ñu koy diaboliser de plus en plus ñuy tëj ak di ñu tijji de plus projet bi te incha allah rabbi dañuy atteindre suñu objectif mooy 2024 dañ koy yóbbu pare day juyee ak Macky mhm. loolu nag mooy li xew ñëpp xam nañ ko événement yi bi ñu ci génnee dafa am suñu mbokk patriote ñu jàpp te li ci état bëgg xam nañ ko mooy dañoo bëgg prox ndollu pour discuter le parti Pastef réewu Macky Sall mooy tas Pastef ba du jàmbaarloog Ousmane Sonko. parce que lu wax loolu. 2024 bokk. te Ousmane parti passif lu tax nga wax loolu. waaw mais ci loolu que ñun état bi ñu amal affaire c' est un état de bandits que la preuve en nekk nee nañ Sénégal am na ay terroristes 4 avril bi taxaw ne Sénégal amul ay terroristes ñu ne ñun ay jaxaadisi lañ ñu ne ñun ay lan ay rebelle lañ ñu ne ñun ay forces occultes. Mhm. des gros mots xam ne ministre l' intérieur Antoine Tchut Diome moo koy employé te li la gisoon. keroog war maal ko boog ministre ministre kii la de. état la de. mais warmaal mais moom warmaalu li mu incarné li eh, mu ko. Mhm. c'est-à-dire ay. mais warmaal ko rek institution la warmaalu ma. warmaalu ma parce que c'est-à-dire man tëj nañ ma ci géej. du ma ko warmaal. waaw baax na du ma ko warmaal tuuj la du ma ko warmaal mënu parce que warmaaluñu li mu nekk xamu ko moom dam day politique. c'est-à-dire moom day politique c'est un politicien. waaw wóyaleel ma ko warmaal. waaw wóyaleel jàllal waaw jàllal jàllal seen baay Macky Sall moom warmaaluñu respecté jimbóor yi mënu ma ko respecté du ma respecté ay doomam mënta nekk. Uh-huh. léegi gis nga loolu ñoom bi ñu ci jógee dañoo jóg pour tas Pastef parce que niiraan gii topp leen niiraan gii jàkkaaroo ñoom te 2024 day tar si ñoom. Uh-huh. ak sàcc geeg guruj geeg tong-tong gi njax suñu xaalis te Ousmane Sonko dilul nekkul ci dil nekkul ci ay négocier dama koy leer il faut que ça soit clair Sénégal yi président Sonko li mu nekkoon ba léegi ci lay nekk tey la wàllu di ay dilul dilaanul négocier wul parce que Macky Sall ko defu dara lu muy négocier. léegi nag loolu ñoom kan moo leen wax day négocier. non man fi ngeen di jëlee information. moom dinaa ci dinaa ci agsi non non Diop dinaa ci agsi dinaa la ko leeral dinaa la ko leeral. yow kan moo la Macky Sall day négocier. non si day négocier def na ay canaux yu bari mais lépp mu antuwul. jaar na baree bari bari ci sëriñ si si ñenn ñi loolu lépp antuwul xam nañ loolu président Sonko mayu leen buntu boobu sax laaj ko Souleymane Jules Diop mi doon essayé loolu lu mu wax. bi mu dajee président Sonko lan la lan la ko euh, si fal bi lan la ko président Sonko da ko mel lu ko doon dëgg da ko wax ne ko faalu. fa leen tase. moom moo ko wax de nee moom ñaar benn yoon lañ njëkk gisee benn yoon lañ gise te gisantewaatuñ si vol moo ko wax seen web ñëpp di ko dégg nee na Ousmane Sonko da koo dëgg sax pour de dire mooy faale wu ko c'est-à-dire Ousmane Sonko li mu nekk mbiri suñu borom la Macky mënu ci dara su yow mu tëdd dem nelaw yi hmm. force occulte force spéciale Black Panther teewul ñuy gëm combat bi man ñaata lañ ma tëj ñett yoon dugg naa kaso barki leen lañ ma doon accusé terroriste 17 jours mu am ko rëbës ñu génne ma teewul ci laa gën a am loo xam ne nii dafa nekkoon loo xam ne ni kumpalu woon ci doomu aadama yi mu nekkoon lu sacré tabu mooy keso prison police gendarmerie ak tribunal Macky Sall loolu da ko dindi si nit ñi. Hmm. c'est-à-dire xamul ne moom patriote bu mu keso kaso. xamul ne patriote bu mu yóbbu police xamul ne patriote bu ñu jàpp terroriste ko dóor la sàcc sa portable policier yi ku ñu jàpp soo fekkee portable baax nga ñàkk nga ko dootu si jot fekkee xaalis dañ koy yóbbu. comme que moom loolu xamul ne moom heure bu ko defee li président soo ko ci livre solution. mu ne l'homme l'homme intègre n'est jamais faible parce que sa force vient de son intégrité loolu moo ñu daal ñun ñëpp ñun patriotes yi nga tëj ñoo ñàkk ñoo tëj heure bu ñu génnee dañuy gën ko combat bi loolu source de motivation la ñun gis nga force force farce bee nekk rëbës quatorze personnes yi ñu wallaahi tey gën a gëm combat bi. mais dañuy te Macky Sall mi ngi ci Macky Sall mi ngi ci tànk di leen gëm loolu ne leen nangu leen ne waa Pastef ñoo nekk seen ginnaaw nangu leen Ousmane Sonko moo leen yónni pour ngeen taal ay Senelec patati pataañ. voilà bëggoon ñëw ak yow parce que dañuy voilà bëggoon parce que dañuy dégg. après ñu jox leen ay passeport diplomatique jox leen xaalis loolu yëpp xam nañ ko. Uh-huh. mais booy. loolu est-ce que dëgg la. non dëgg la ma dama ne mais Ami Amina Dia lan lañ ko def ci PV bi Amina Dia magam moo génn waxoon te loolu lu dëgg la c'est factuel dañ na ko PV bi dañ ciy bind na ko yow yaa wax ne bëggoo avocat yow yaa wax ne li ñuy giñ dëgg la yaa ko def signé ko mu bañ mais yëpp xam nañ ko ñun c'est-à-dire ñoom liñ bëgg moo mënta nekk te du am. Hmm. te ñun on s'est bien préparé ñun dañoo xam liñ xam dañoo xam liy xew xam nañ liy xew 2024 feeg 2024 lu ne dañ ci xew mais yàlla dimbal dañoo préparé suñu bopp Ousmane Sonko suñu bopp da koo préparé da koo aar. léegi yow ne état bi i plan parce que négociation bi ça ne passera jàll. bëgg nañoo neexa saay bëgg nañoo négocier ak moom. mais Pape Alé dégg nañ ko mu doon tamit euh, euh, maanaam pexe bi bëgg mooy jàpp Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias. loolu naa si ñëw loolu naa si ñëw gis nga force spéciale boobu gis nga ñooñu ay innocent lañ defuñ dara. Mhm. mais seen seul mooy dañoo ànd ak Ousmane Sonko. voilà ku la mën a wax ñoom bi ñu defee réquis perquisition seen kër wala bu ñu defee réquisition seen portable gis nañ ci tarafata ay na lu nuur ak ay force spéciale ko xam ne jàppoo ko lenn luy taal ab dëkk ab almet sax jàppewuñu ko tey jii par la complicité de la presse corrompue cette presse marionnette cette de plume plus précisément groupe GFM parce que lu ji ñaak ñoom ñooy njàkk ñoom ñoo fi accusé woon imam imam Ndaw de terroriste seen groupe presse boobu. waaw mais Diop bul bul bul bul bul tudd turu presse may ma may ma may ma may ma may ma s'il te ñu tëj maam bu la neexee am nga liberté d'expression xaaral xaaral Diop am nga liberté d'expression bu la neexee nga bul tudd ay TFM ñoom Macky ñoom la waaw ñoom la waaw mais tudd dama leen tudd mhm. j'ai pas peur de non tudd non dama leen tudd journaliste nga seen mbokk nga su la neex nga défendre ma kenn mais bul tudd daal non mais en tant que patriote man dama leen tudd man j'assume mes propos j'insiste mhm. et je persiste. am nga droit nga wax. dama kenn mais. Youssou Ndour Youssou Ndour lim nekk da cee way nee na ma makkee ko arrangé damay wax patriote am nañ seen fulla am que nee nañ makkee ne arrangé am fayda bu ngeen seetaante TFM bu ngeen jënte journal l'observateur parce que nag gatsa gatsa la gis na guerre day saf mondial nit ki su nekk sam noonu dekk nekk sa ennemi juré da ngay am sa fulla am sa fayda Ousmane Sonko ñun dañ koy yam rek suñu bakkan yii combat bi c'est un projet projet bi nag day dem ba 2024 incha allah kon nañ am suñ fulla am suñ fayda gis nga force spéciale yi gis nga Ousmane Diagne li ko dal dem Papito Kara barki démb ñu defal leen benn marche pour ñu bàyyi leen TFM génn ci loxoom parce que ñoom caricature ñu Ousmane Diagne publié wu dafa partagé man mii partagé naa keneen partagé na léegi nag dans un pays où on interdit de rire dañoo criminaliser ree dañoo criminaliser comédie y a problème qui aurait imaginé que le Sénégal de 2022 am Macky Sall mi xam dañ koo xeexal ba fi mu nekk mu nekk parce que mbindaanu Sénégal. comme Toumane Diagne affaire reetaan lañ ko jàppee. ree lañ ko jàppee dañ ko criminalisé. ku leen wax loolu. non si am moo am ci PV bi parce que ñoom groupe GFM nee nañu plainte wuñ te ñoom ñoo plainte lépp ñoo nekk si ginnaaw. non Ousmane Diagne moom GFM plainte wul waa euh, procureur moo autosaisir. procureur lu tax day autosaisir wu. daa dem nee nañ c'est le c'est le maître des poursuites waaye xam daa woon banque këram lu tax auto ana Aline Dumour Sow mi taxaw nañ génnee ay jaasi pour troisième mandat lu tax ana euh, Alioune Sall suñu 400000 mi xam ne moo naan pétrole moom ak Macky Sall lu tax auto-saisir ana Mansour Faye ana 705 ana 766 milliards yi xam ne moo nekk yi ndox mi mu naan ko ndox mu géej mépp mu naan ko ndox mu taw mu naan ko ana moom fan la ko reesalee ana 1000 milliards Covid bi et tant d'autres et tant d'autres scandale hmm? bi mooy géwélu Macky la ñuy sàcc mbumbaay gi xumbaay gi tong-tong gi Marème Faye Sall heure bu ko neexee dem organiser ay bongo di tasaare suñu xaalis comme ça ñu ne léegi Sonko dafa war a ñëw pour négocier ak ñoom pour rassurer leen seen ginnaaw ay non fii négociation du fi am affaire yi yooyu ay négociation ay deal pour jot ci pouvoir ñun diluñu négocier wuñu il faut que ça soit clair te la réduction des comptes day am force. affaire libéraux libéraux yaa ñu seen biir léegi de. non dama ne. wàllu dama ne <laughs> président Sonko. waaw li mu am mbiri suñu borom la moom nee na. ginnaaw yàlla mi ko sàkk dénk na askanu Sénégal jëmmam. Mhm. dañ koy aar dañ koy protéger suñu bakkanam lañ ci teg ku bëgg dem ci Macky yaa xam demal ci Macky mais nag après peuple am nañ fulla am nañ de ku leen fi bàyyi dem dañuy toog di la xaar wii toog yàlla de soo ñëwaatee ñu la ah demal fa nga nekkoon ñun ñi nga ak yàlla ba léegi. laaj ko Bamba Fall lu mu gis képp ku transhumé bi nga ñëwee nax askan wi ne damay xeex ak Macky ñu ànd ak yow bi nga pare nga dem jaay yow doo nga dem. bi nga jaay seen ngor parce que Serigne Cheikh Gaïndé Fatma dafa wax ne ngor dafa ne kenn du ko am di ko jaay ñoom bi ñu jaay seen ngor dara dara dafaa desetul biñ ñëwee askan amaat seen fulla am seen fayda Macky yettu ginnaaw kër la yettu ginnaaw kër kon la fa la ca xew kon xam nañ ko képp ku xeexam da ngay taq ku bëgg nag mu taqal yóbbaal la suy dem acca yow booy booy ñu teg loxo nii si kaso bi muy force spéciale yi. Mm-hmm. est-ce que yéen a ngi def taxawu di leen taxawu. waaw comme ni nga ko waxee patriote yëpp ñu ngi leen taxawu ñu ngi ñu ngi leen taxawu ñun suñu rôle mooy président Sonko lépp lu ñu digal lañ koy def suñu ko digalu sax dañ koy def nee ko combat bii ñuy def li ñu nekkee nii wax ko barki démb. suñu abdou ngeen taxawu leen. waa si euh, Muxti maa ngi koy sant di ko gërëm au passage parce que barki démb màggalu Mbacke baar gi rek daje nañ fa euh, ci invitation sëñ Sa Thioro ab député mu ñuy wax di ñu sant ma ne ko la ma waxoon président Sonko laa lay wax li ñuy def nii sooñ xam nga lañ ci xaar ngërëmal suñu mooy lan ñun soxluwuñ dara doo xoolee xaw parce que bu la wax ne Diop tey mos la ko def xam nga ne contrat bi hmm. pare ñu wan ko ginnaaw na ko liggéeyal. Hmm. gis nga force spéciale bi ak kuñ mën di tëj élastique ñes kuñ mën di ñun ñoo lay taxaw ñoo lay utal avocat li ci war lekk ak naan ñoo la koy defan sa njaboot fekkee soutien famille nga lañ ci mën danañ ko def. torturé nañ daanu nag daanu nag. dañu fépp parce que dégg naa gars yi moom ku ñu jàpp rek dañ lay torturé est ce que ñoom. mais si moo am François Makabu lan lañ ko def. mais Macky Sall ak police am ñoo ko rey ñoo ko rey barki démb ki ñu rey Ziguinchor lan lañ ko def autopsie. président Sonko wax na ci. non fii laay wax booy ñu jàpp fii. mais dama ne booy yi. Macky Sall moo tëj. Macky Sall leen jàpp heure bu neexee Macky Sall nag mu bakko. yow da si xam ñoom ñëpp xoola soo xoolee ñi ñu jàppoon place BCEAO. waaw ñett lañ uh-huh. ñoom bay na notre na ñoom ñëpp ci cible c'est-à-dire Pape Ablaye Seck Pape Ibrahima Seck institut yooyu Ousmane Dramé ñooñu lañ téye ñañ soxlañ parce que dañoo jàpp ne kan mooy si frère Akhenaton mooy pap Ablaye Seck. Mm-hmm. moom ak nekkoon bi ne si Facebook bi. exactement mu ngi chambre une te xoolal li gën a garaaw dañ leen yóbbu chambre yi tar yu metti te xoolal ce qui est extraordinaire mooy kenn ku nekk si ñoom ak Abdou Sylla kenn ku nekk si ñoom changé nañ la chambre presque quatre fois cinq fois. ah bon li ma lay wax lu wér c'est factuel. lu mm-hmm. garaaw laa lay wax nii te booy ay njàmbaar lañ ñu leen yóbbul añ reer dikki. Ah di waxaat patriote encore une fois non duñ leen bàyyi mukk ci àddina. Mm-hmm. nee même président Sonko suñu ko santoon 84 détenus yi événement yi bi ñu leen jàppee ñu leen di yóbbu añ reer ndékki parce que loolu dama ne loolu ittihaad la dama ne loolu sociabilité la au delà même de la politique dafa war diggante jullit ak moromam. dama ne Ousmane Sonko li ko yàlla may yónni salaay salaam bi ko suñu borom yónnee da ko booleeg ay jàmbaar ñun dañoo jàpp ne ñun nous faisons partie des généraux de Ousmane Sonko Seydina Ali Seydina Ousmane Aboubacar Sadiq ay xaali in mu walit ñooñu ay généraux yi Seydina Seyd Seydina Mohamed lañ pour mu réussir si combat bi pour mu réussir si projet bi mhm. Ousmane Sonko suñu borom da ko booleeg ay nit mhm. ñun dañ ne suñu ndam xam nga mooy lan ñu atteindre suñu objectif mooy yóbbu ko palais cest à benn nee naa la ñun Pastef patriote projet bi ni ñuy dundee amul ci taarix politique Sénégal loolu la yàlla def sociabilité yoo xam nga ci dara sociabilité bi ñuy dundee amul ñëw dañ comme si ñoo bokk nday ak bàyyi loolu tax ma ne lii c'est au-delà même de Ousmane Sonko il s'agit de l'avenir du pays nit ñi Sénégal rek moo leen ñor Sénégal rek moo leen yitteel ku jàppan nag yaa ngi ci dara da ngay sóob doo ci dara kenn du ci dara si ñun mbir mi nii yàlla li muy def def na ko si Ousmane Sonko yàlla dafa sélectionné c'est-à-dire yàlla dafa ñoo sélectionné boole ñu si ñi war a accompagner Ousmane Sonko loolu ndam la loolu dañ koy kañoo loolu tax na projet bi ñoom ñoom ñoom dañ leen def mandat dépôt ñoom ñëpp wala. dañ leen yóbbu instruction. bi ñu la yóbbee instruction yóbbu leen mandat dépôt au lieu que ñu yóbbu leen flagrant délit defuñ ko. léegi fu mu toon dañuy toog di déglu rek. dañuy toog di déglu rek bu heure bu neexee Macky Sall ak jugeem ak procureur am mu àndal leen bàyyi waa leen. soxna siñ si jàpp noonu. moom Amina Dia Amina. lu garaaw woo ah. rek ne ko yaa jox gars xaalis. Mhm. képp moom si yan situation la ne. non situation yi nekk situation des situations misérables douloureux parce que yow sax njaboot nga nekk moom di liggéey gëm projet bi. sa seul mooy Macky Sall mooy yow Macky Sall bokk ak moom xalaatu àddina bokk moom xalaatu politique mu jàppale yóbbu la ci kaso bi. jot ngeen ko dem seeti. non gars yi koy seet ñi ngi koy nemmeeku ay mbokk mi aussi ñi ngi koy te xoolal dama ne mongolum yee nekk pale ay ñoom Amadou Sall mongolum yee. Mhm. gis nga su la yóbbuwoon kaso dina xam moom lan lay kaso def. Mhm. doomu jaamu nga jàpp ko kon Marième Faye Sall su tëdd di nelaw loolu na ko def na jël mongolom yi rek sànni leen rëbës bàyyil bàyyil goro moo ay mongol ay yooyu waay dama ne xoolal dama ne li muy ñoo lay seetaan waa Macky Sall gis nga Macky Sall dafa dafa mës a dugg kaso sa yaram day tàng rek nga dem bañ dafa dem ci alaaji baara di jooy eh, eh, eh, ay sëñ bi wax ne ko Macky góor du jooy góor du jooy kon xoolal xoolal gis nga lii lii def lii def góor ci patriote la ko borom def lii def góor si Ousmane Sonko rek ñun duñ saalit duñ mësa a saalit parce que projet bi dañ ne ñun dañ ci jaamu yàlla ñun suñu bakkan lañ ciy teg bokku ñi nga xam ne àllu àdd moo ko jóg mais Macky Sall dafa trompé Sénégal yi waxoon ko sa seen sa sa sa seen bi fii Macky Sall bi ñu koy fas suñu xamoon ne mi ngi huit milliards di deedeelu di ñàkk-ñàkkalu mu euh, diaspora bi di ko jàppale tey diaspora bi wan ko ginnaaw man mii Macky Sall dama ko jàpp buñ tëj ma ci gis nga ne olof Ndiaye dane fa nga naan jaar ñu lay tàcc soo fa jaaree xaj di lu yuuxoo xeer yi di dàq war ngaa xoolaat sa bopp nga à CTV, la chaîne des patriotes.